di Roqaya Xadija jur Zeynab Xadija jur Umm Kulsum Xadija moo jur euh, moo jur Fatima Xadija jur Abdullahi Xadija moo jur Xaasim waaye Seydatuna Xadija euh, doom yi mu amal yi amul ko ci am 30 ans Yonent bi yi vingt Oumou Koulsoum dund 22 ans président kon président bu baax ñu ngi lay masawu bu baax a baax maa ngi ñëw ànd ak Oustaz Modou Fall moom sunu kàddu mooy kàddoom. yow président Bougane da ngay sunu wóllëre di sunu soppe di sunu xarit boo amee naqar ñun ñëpp mu am soo amee bànneex Sénégal ñëpp daanu ko am ndax sa doxin waaye sa jikkoy bopp maa ngi jégalu ci kàddu yi bu baax a baax euh, sunu xarit bopp Mouhamed Mbaye euh, sëriñ am Diop moom itam moo koy jàll sa Mouhamed Mbaye di ko masawu sëriñ Babacar Diagne sunu soppe sunu euh, lépp sunu liggéey alxaaji Abdoulaye moom itam ñu koy masaw di ko ñaanal yàlla yàlla yokk dëgëral wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Pape Mbaye Peex na jërëjëf Oustaz Pape Makumba An li ngeen def na ñu ko man mën naa ko delloo sama diggante ak yéen ndax moom mii ak rëy na lool. kooku du sëñ Bari. siyaar rek. suñu yoroo suñu télévision. yéen yéen a ngi seen télévision. waaye fu ngeen fekk. bëpp leen micro. li ci war ngeen def ko. seen diggante bu baax. suñu kilifa nag ñëw na. yegg si na léegi. koo xam ni. ñun ñëpp jaar nañu ci loxo. muy Babacar Diagne. directeur ñu jox ko muy saytu lii génn lii génn ci télé yi ci télé yi ak fu muy génne ak fu muy jaar muy Sénégal waaye Serigne Babacar bi la kuy wut ak bor na ko gis kuy wut bu baax na ko gis Babacar Diagne ku dëgg la waaye toujours daf may wax ni bu coobaree na nga xam ni sama diggante koy tey ñëw jaale si yal na yàlla fay la sa taxawaay la leeral mbooloo bi dégg nga président Macky Sall woo na Bougane waxtaan ak moom masawu ko xamal ko ni ko jot naa it léegi premier ministre daa ñu jaale si Karim Wade fa mu nekk woo na Bougane jaal ko yabal Idrissa Seck jot na Bougane jaale ko ki nga xam ne mooy mooy Ousmane Sonko te dëkk ak moom te dëkk ak moom woo na ko jaale ko lebal waa këram démb bi opposition bi yëpp ñu ngi fi woon waaye diggante Bougane président Macky Sall dafa am lu ma ca xam te nekk ci diggante bi te Bougane di si góor te gëm yàlla weeroo ci kenn ku dul yàlla moo tax borom réew mi lu coow bari mu ne bàyyi naa Boucar Sarr am na jom am na jom te mi ngi liggéey kon bu Babacar Diagne ñëwee war na koo leeral loolu bu ko defee dafa maa ngi lay seen ak sa mbax xam naa ne tey da ngay bañ a génne la base moo tax moo tax tey nga sol mbax nga xam ni ñoom ñii tey ñoo ñàkk seen patron. maa ngi nii ci biir base bi. ñoom itam ñu ngi jaarale ci seen patron. maanaam sax mu ngi nekkoon kenn ci ñoom itam. ñu ngi nii di ñëw ànd ak si yow bu yor programme bi nga xam ne. damaa la ko ci seen tool. ñu àndandoo rek. bugaan sa njaboot gi nii di la jaay. damaa la ko baax. Bougane ñëw na sa délégation Bougane seen TV wala Cheikh Moussa Dame ba déggee ne sax nañu wax si loolu Cheikh Mamadou Moustapha mi toog ak jotaayam ànd ak mboolem ay rakam ñu yaram ay rakam Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Serigne Moussa bi nekk ay Serigne Cheikh ñu ngi ànd ak Serigne Mbacké Soxla maa ngi nii ci zone Bouga ci zone Bouga nekk maa ngi ci zone Bouga maa ngi ci zone Bouga waaye gisaguma ko loolu bu ko xam gisoo ko micro yi di dox gisoo ko nit ñi ci mbooloo bi bëri boo ñëwee doo nekk. waaw fii si ñoom mbay piix nekk nekk. micro kër gee nu nekk di yëngu barab ba imaamul Cheikh Abdoul Fatah la ñu ko tuddee kon moom rek kii mooy si Modou Moussa Mbacké di xale bi Serigne Fatah Moussa Diakhaté Fatma kii di rakkam di Serigne Cheikh Mbacké Guèye Fatma Serigne Fatah kii di Serigne Mbacké Cheikh Mamadou Serigne Fatah lii ñu def nag rafet na lool nee naa leen seen way yi mu déglu la kenn jëf ko fi mun Serigne Abdourahmane mun Serigne Diakhaté Fatma ala jam laay lii de lii de Serigne Abdoul Fatah bi def ñii ñooy borom bés bi si ndax yéen a ci bugaan soo jël ko Fataw moo koy gën la mu ñuy ni dinaa ko defal bugaan seen yëf bu moo koy gën kon bu yàlla kii nga war a ci bugaan ci moom la ak kon ñoom ñi moom bés bi ñoo yëg leen tuuti nga jege leen ñu yëkkati seen su ko defee ñu doog a waaye rafetlu teewaayu Bara Gaye Bara Gaye war na leen bugaan maa ma bokk ne moom ak Noël Dieng seen taxawaay ñun ñu ànd ak bugaan naka moom gis nañ ko yàlla yàlla fay leen Cheikh dañuy ñaan rek délégation seen TV ñooy dugg si nii ñu ngi leen may rek délégation seen TV ñu ngi nii di ñëw tey nag wax naa dëgg war na. seen patron moo génn àdduna bëggoon nañoo fekk nii sëriñ bu gaan toog lu wan ne fa amoon pour muumi ndax taxawaayam jàmbaaram papa moomu si ni maamoo dugg si nii tabaarakallaahu ànd ak doomam Ndella Babacar tabaarakallaahu Anta Babacar li ngay ànd ak koy juróom ndeysaan nañu leen may ñu toog